413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak Sunugal 24 ñuy am mbégte bu yaatu dellu si waat seen émission l'invité de la rédaction euh, tey nag ma ci dalal Makhtar Mbaye moom moo jiite rassemblement des jeunes pour un Sénégal émergent ñoom ñu ngi bokk ci euh, langue nguur gi la ñu faral ah ñoom ñoo nekk au pouvoir ndaw yooyu nag euh, ñu moom lañ dalal tey ñu fas yéene waxtaanee lépp lu soxal actualité bi rawatina politique bi nga xam ne jamono ji yëngatu na bu baax a baax Makhtar ma bàyyi la nga nuyu ak ñuy suivre. asalaamaaleykum waa. vingt 24 ñu ngi nuyu téléspectateur aussi yu ñuy seetaan di nuyu aussi suñ mouvement bi nga xamante ni mooy rassemblement des jeunes pour un Sénégal émergent. Mhm. merci beaucoup. ok pour Sénégal émergent ngeen fare ci euh, nguur gi mhm. euh, mais déjà am nañ COJER te xam nañ ne COJER ñoom ñoo ëmbal ndaw yi fa nekk lan moo waral ngeen boddee compté wala àndu leen ak waa COJER. waaw bon loolu nag euh, lenn la parce que bon ñun bi ñuy doo ko ñëw di commencé euh, suñu activité politique ci COJER lañ bokk parce que bon ñu ci parti bi depuis la création du parti donc dégluñu tëb tëb rek boo deeku créer un mouvement à côté mais bi ñu nekkee biir COJER fay nekk di fa di fa lépp lu parti bi laaj aussi ñu cay ñu cay joxe suñu suñu temps di joxe suñu xam-xam di ci joxe suñu moyens aussi lépp lu ci man arrivé à un certain moment gis nañ ni ki nga xamante ni moom la fi président jiital muy euh, Moussa Sow Euh, dem na ba défendre tout intérêt jeunesse bi parce que boo xoolee tout récemment mi ngi doon def benn rassemblement bi mu ñëwee ñun ñi âgé lañ wax ci bi mu ñëwee point de presse la def donc euh, mobilisation ban fa gis sax ñëpp xam nañ ni <laughs> mobilisation boobu COJER gëj na ko fee am li waraloon ñëpp ñu âgé lañ yaakaaroon ni moo fa am. pour su ko defee kenn ku ci nekk mën a wax mais comme que moom nag interpersonnel am moo ko ñor ak xëy na benn lobby bu ndaw bi nga xam ne ñoo ko séq et que le mouvement rassemblement des jeunes pour un Sénégal émergent mouvement la boo xam te ni euh, génn kuréelu président Macky Sall parce que boo xoolee le nom même l'indique rassemblement des jeunes pour Sénégal émergent ñëpp xam nañ ni PSE plan Sénégal émergent mm-hmm. le président Macky Sall rek moo ñu ñor di défendre aussi ay intérêt fépp foo xam te ni foofu la mën di nekk. mais moo leen ñor lan moo waral féewuloo bi. féewuloo bi dañoo dem ba nga gis ni carrément accompagner la jeunesse. mais comme président moo ko fi tekkee est ce que doon woon normal ngeen ngeen topp ci ginnaaw. non si dans les normes moom la waroon def mais président moo ko fi teg rek taxul ñu topp ci ginnaawam bu fekkee def parewul pour jàppale la jeunesse parce que ñun ki ñu àndal day nekk jeune boo xam te ni vraiment kii kat dina mën a taxaw. intérêt des jeunes bu waree menacé moom mu taxaw jaay bakkanam wala taxaw ni ak le président ak ko président kat ndaw ñaa ngi nii ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci yow jusqu'à présent amuñu liggéey amuñu def xoolal yan pis lañ leen di pour mën leen di jàppale mm-hmm. mais koo xam te ne bu taxee président danaan ko leen sant di pour moom mën a am bi privilège kooku nous nous disons non et nous devons vraiment barrer la route au conflit d'intérêts. ok ñu gis wax nga rassemblement des jeunes pour un Sénégal émergent ñu gis COJER ñu gis maire mais boo leen xoolee seen mbootaayu yëpp ak yeneen yoo xam ne tudduma leen sax daanaka dafa mel ni euh, seen doole dese na ñu gis ko rawatina ci réseaux sociaux yi seen présence bi ngeen waroon am amoo ko lu waral loolu. waaw boo bu fekkee ñun la euh, pratiquement dañoo amul ce qu'on appelle un parrain politique. ah le président Macky Sall rek lañ visé euh, ni mooy suñu parrain amoo leen parrain politique maanaam maanaam amul benn leader boo xam te ni mu ngi ci suñu mën noo jàppale mais est ce que loolu du du wane ne amoo leen doole moo tax amoo leen parrain non non du ñàkk doole parce que mouvement boo xam te ni na le tour c'est un mouvement national donc ñàkk ñu doole et euh, tout récemment maa ngi nuyu au passage le directeur de l'emploi qui nous a reçu vraiment jox ñu ay orientation ay perspectives waxtaan nañ ci bu baax a baax ñu ngi koy féliciter di ko remercier au passage mais ñun suñu mouvement c'est un mouvement national donc doole moom kenn waxatu ko mais li ñuy bañ mooy jël mouvement bi di ko moomalee diw wala diw kenn benn benn benn cible lañ am muy le président Macky moo tax ñu ngi ko féetaleel kenn. loolu rek a waral amul benn benn ngeen am président Macky Sall te toog ak moom xam yombul. waaw mais est est-ce que nekku leen kon di perdre seen parce que amoo leen parrain benn cible nga am te seen euh, pour ngeen toog ak du yomb kon est-ce que nekku leen di perdre seen du perdre temps parce que le président Macky Sall c'est la personne la plus informée dans ce pays donc lépp loo xam ne ñoom ñu koy def gëm nañ ni moom mi ngi jot et par contre. lépp loo xam te ne war nañ def wala lépp xam te ne ko mën wax pour toog le président Macky Sall nous allons le faire incha allah rabbi te gëm nañ ne ko def parce que euh, on va pousser le bouchon parce que bu ñu jógee incha allah rabbi ci émission yi def nii dañ koy lancer point de presse la ñuy def. Mhm. pour wax ak le président Macky Sall. mu wax ko ni carrément ndaw ñi nga xam te ñoo bokk rassemblement des jeunes pour un Sénégal émergent ay ndaw yoo xam te ne depuis la création du parti ñu ngi ci nekkoon ak yow di la jàppale jusqu'à présent gisuñu seen bopp amuñu xëy amuñu dara kon nag le président Macky Sall war naa aussi jeunesse bi nga xam te ne ñoo ko doon jàppale depuis la création du parti seen ñàkkum Pastef ci réseaux sociaux yi lu ko waral non am ci Pastef parce que ñu ngi doon ba lépp nga xam ne ñu ngi ko doon def ñu ngi ko doon publier sur Facebook. waxuma loolu mooy ku ku ko def Macky Sall ngeen def ko ko. non mooy li ma wax defante bi. non ñu ngi doon ñu parce que man jóge naa leeral tout récemment di di di wax le président Macky Sall acte yi nga xam te ne moom la def ñëpp xam nañ ne posé na ay actes yoo xam te ni carton na ñu nga xam te ne ñoo fi nekkoon muy ci wàllum sàmm ci napp geeg yooyu yëpp le président Macky Sall gis nañ jéego yi am solo yi mu ci def. kon donc loolu moom on en disconvient même pas. mais su ma nee su ma nee taxawaay bi mooy dafa des suma gis-gis bu gàtt parce que boo waxee réseaux sociaux rek dañ naan euh, waa kujje gi daanaka ñoom ñoo ko ñoom ñoo faree fépp. Mhm. ñoo ñoom ñoom seen publication yi ñoo gën a jóg ñoom ñoo nekk ci nekk yéen dafa mel ni da ngeen ragal réseaux sociaux yi kon boobu laa waxee. Euh, ragaluñ ko mooy li ma la wax xam nga euh, pour le naufragé même la queue du serpent est un bouée de sauvetage pour lui ñun par exemple bu ñu gisoon ci lenn lu ñu jàpp dinañ ci mën a yokkati ko. mais comme que amoo leen loo xam te ni jàpp nga ko pour mën a défendre nit ki mais ëpp looy def. def seen. li mu mën a góorgóorlu mooy li te ni moom la def le maximum possible muy wéy fexe di sensibiliser di fekk aussi ay jeunes yoo xam te ni bokkuñu woon sax ci parti bi ñu fexe leen conscientiser xëcc leen pour ñu adhéré ci biir parti bi mais on l'a fait pratiquement dans toutes les régions ñu ci maillage jusqu'à présent on n'a jamais arrêté. Mhm. donc li des rek mooy ñoom leader yi nga xam te ne ñoo représenté Macky Sall teg ñu gëstu la jeunesse mais plus particulièrement à la jeunesse bi nga xam ne ñoo nekkoon di xeex ngir le président Macky Sall. Mhm. liste bi am ngeen ci taxawaay ndaw yi am ngeen ci wàllu parce que liste opposition gis nañ ne bëriwul ay ndaw. Mhm. mais seen liste yi ndax bëri na ay ndaw. non yi nag wax dëgg fa la bëriwuma ci bariwuma ci volume d' information bi kiiwul quoi c' est pas important. ci man voilà ki jotuma ci lu kii voilà. taxawaayu ndaw yi. ñu gis ne toujours ndaw yi actuellement am na benn leader bu génn woo leen pour ñu génn. su fekkente ne jafe-jafe am na euh, si mbirum liste yeeg yooyu mi Ousmane Sonko. Mhm. mu wootee mu am ñu bëri ñu génn tontu ko ci euh, ndax yaakaar nga ne euh, appel boobu ndaw yi mënees nañ ko dégg wala dinañ ko ci fekk si. yaakaaruma ko ndaxte xam nga ici au Sénégal. panaa a la chance en tout cas d'avoir euh, une jeunesse euh, pétrie de connaissances euh, jeune jeunesse boo xam ni vraiment li leen ñor mooy seen seen peuple li leen ñor mooy nan la ñuy def ba mën a développer suñu pays nan la ñuy def ba suñu waajur nga xam te ni ñoo fi nekk nan lañ leen dimbalee nan la ñuy fexe ba couche bi nga nekk bi mu nekk nan lañ koy mën a génne ba nekk ci ay nootu donc pour man jeunesse bi loolu moo leen ñor te loolu mooy seen Euh, je me méfie des jugements intempestifs je me méfie des jugements à l'emporte-pièce peut-être ñoom après man na wax lu neex mais fi mu nekk nii mooy waxante ak yow jeunesse bi parewul sax di nekk ci combat yooyu fi mu nekk nii jeunesse bi li ñor mooy seen jàng na leen koy respecté. le Sénégal c' pas le Sénégal de Ousmane Sonko. mais jeunesse boobu ñoom ñoo génnoon mois de mars ah. non non xam nga xam nga xam nga loolu. Euh, secousse boobu kenn du ko def une lecture kenn du ko def une lecture approximative kenn du ko def aussi une lecture euh, boo xam te ni lu gàtt la déedéet lu yaatu loo xam te ni circonstances yi ñoo bari paramétrage yi aussi ñoo bari xam nga euh, Ousmane Sonko était l'élément déclencheur mais am na ci ñoo xam te ñu doon ñaxtu ñaxtu lu woon en faveur de Ousmane Sonko déedéet ñii neen couvre-feu bi la woon ñii neen dañoo xiifoon d'ailleurs le baromètre c'était le champ au champ bi nga gisee am na ci ñoo xamante ni jëluñu woon parfum mhm. jëluñu ay ay ay colgate loolu la doon jël ceeb ak diwriñ mhm. le président Macky Sall aussi ci discours am ba mu tenir dégg nga lam mu wax je vous ai compris donc moom xam na li nga xam te moo ko doon xaar d'ailleurs moo tax le plus rapidement possible mu lancé programme yi nga xam ne moom la lancé woon. Mmh. lancé na programme bi mais teewul ba tey ndaw ñi ñu ngi wéy di ñàkk liggéey teewul ba tey ñu ngi wéy di mer teewul ba tey frustration mi ngi gën a bëri. bon xam nga on peut pas euh, lépp mënta sotti. waaw waaw lépp mënoo attendre atteindre le paroxysme on peut pas le mais donc li nga man mooy poser des jalons. le président Macky Sall en tout cas li muy def xam na ko li muy def mën na ko mais le problème problème bi du Macky Sall du président mais c'est son entourage entourage bi nga xam te loolu loolu wax ñu ne Abdoulaye Wade c'était comme ça le problème c'est pas Wade c'est son entourage actuellement le problème c'est pas Macky son entourage c'est l'argument de monsieur tout le monde peut-être mhm. mais man te jii xam naa cause bi may défendre ci loolu xam naa aussi li may défendre bu baax a baax parce que aujourd'hui je je sais en tout cas donc quoi je parle parce que maa ngi ci biir maa ngi jëflante ak ñoom bu baax a baax mais li ma la ci mën a wax le président Macky Sall day joxe sax ay directives ñoom ñu koy désorienté problème bi du président Macky Sall mais entourage bi xam ne ñoo fi nekk ak délégué yi nga xam ne ñoo fi nekk pare wuñ pour jàppale président Macky Sall est est-ce que ces ah da ngay jëm baaraamu tuuma ministre non bien sûr que oui dama leen jëm baaraamu tuuma damay laaj sax ñoom est ce que bëgg nañ réew mi est ce que bëgg nañ peuple bi est ce que bëgg nañ askan wi parce que yenn actes yi aussi boo fekkee nit ki day taxaw di ko def dama naan kii. ak actes yu ni mel actes yu mel. da ngay yaa naa assez parce que boo mënee taxaw euh, jiite am réew war a xool l' intérêt général. au détriment de l'interpersonnel ngay xool say booy yi nga xam te ñooy nekk à côté léegi ñooy ñoo lay jeté ay fleur ñooy nekk à côté. mais loolu ñoom ñëpp la ah. moo tax man la problème la loolu mooy problème bi nag loolu nag moo war a jeex ci réew mi parce que euh, li war a def man je préfère faire l'histoire que de garder le pouvoir éternellement koo fi dégg ex lay doon. ex ministre donc ngay doon kon donc pour man ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom war ngaa mën def loo xam te ni ëllëg Sénégal dañ lay naw ëllëg Séné sagu Sénégal ngay doon mais pas ngay def loo xam te ni bu ëllëgee koo ni diw mun la accim. ok liste yi Benno Bokk Yaakaar bokk na Yewwi Dakar bokk na ci wet gi am ñu jàpp ne combine bëri la. Mhm. noo ko gisee ndax combine bëri la. waaw kon ñun benn la ñoom xam nga. ah da jaakaar ne Yewwi ak Benno dañoo dañoo petoo pour pour bokk. du du du ko combine du ñu combine bëre ñoom ñaar sax laa bëgg wax je peux dire du euh, liñ ci mën a wax ba man ci wax boo xoolee Yewwi Askan Wi quoi qu'on puisse dire euh, c'est eux en tout cas euh, opposant farouche bi fi mu nekk ni ñoom la quoi qu'on puisse dire qu'on le veuille ou pas donc mënuñoo bañ a bëre. comme l'a ba ñu Touré, donc ils seront vraiment dans l'obligation de le faire. Mhm. C'est inévitable. mais fi ma waxee mooy. Mhm. dañoo jàpp ne ñoom ñaar war woon a bokk ci élection yi mais ñu def ba ñoom ñaar ñëpp ñu bokk mhm. ñu ne nañ leen nañ demandoo rek ñu ñu ñu teg fële wàllum loi yi parce que ah. loolu la benn opposition bi ñu mel ni aar di ñaawlu parce que dañu jàpp ne dañoo teg fële loi. jiital leen parce que dañoo am doole moo tax ñu bokk. non en tout cas man côté boobu li ma a wax mooy ne am na ci. parce que euh, imaginez-vous euh, ñi nga xam te ni ñoom choisir le président Macky Sall choisir leen ñu leen yéen yéen a defar liste yi ñun ñu jël liste wane ci ak cuune di tabb di boole ñaari jigéen rek di boole ay ñaari góor parité bi nga xam te ni respecté ñu ko foofu li ma mooy le Sénégal. Mhm. li ma mooy ëllëgu Sénégal parce que imaginez-vous ki nga xam te mag la ñu jël ab liste jox ko mu wone ci ak cuune mais kooku dama jàpp ni ëllëg ensemble buñ ko joxee ko joxee benn projet de loi mais kooku mën na koo voté ca nga xam ni mooy dara ci ci bi ça sera un impact négatif donc loolu foofu laa tiite ni ku ñuy mu koy jaawale kii ëllëg mën naa voté loi boo xam te ni kat mën naa am ñaari langue yëpp la ñoom ñëpp la ñoom ñëpp laa koy wax loolu nag day wone nii rek la jeunesse c'est la jeunesse qui détient le haut du pavé par exemple man li may cuune cuune ku ma joxoon loolu xalaatuma ko ci àdduna du ma ko def léegi nag li problème bi mbirum nga ko jàppee mbirum cuune laa ko jàppee rek non pas parce que bon xam nga il aurait vraiment di former comité boo xam te ni comité technique lay nekk c'est-à-dire ñu arrêter politique politicien bi il faut qu'on barre la route à ça équipe technique boo xam te ni duñ dugg sax ci activité politique maa ngi doon wax ak euh, le président Ali Lo de ak kii maa ngi koy nuyu passage mu nekk kilifa aussi ci réew mi ci borom bopp borom xel borom xam-xam mooy wax ci parti socialiste ni ñu ko daan doxale ñi daan séeréer si sax daaw ñu def politique seen yoon mosut a nekk ci activité politique. dañu ñëw gérer affaire bi ni li laaj lépp ñu jël ko tëral ko def ko nan ko nam waree mais présentement les gens sont beaucoup plus moo tax liste yi loo ci gis népotisme ak clientélisme politique rek nga ciy def lan ciy lan ciy gis ñoom neex lan koy à leur faveur xamuñu kii mooy liggéeyal président Macky Sall xamuñu ko liggéeyal président Macky Sall même ces gens que vous voyez. liste président Macky Sall moo ko defar ah moom moo defar liste am. non moo ko defar. mais après dans tout ça. moom a moo ko defar ah. non xam na ak ñaar wala ñetti ay ñoñam. Mm-hmm. defar liste jox ba noa mu yóbbu. loolu moo am non bënnuwaa sax xam nga tey jii man bënnuwaa ma yóbbu liste ya ak ñi nga xam te ni benn ak ñett ya nga wax kon ñoom cuune gi ci ñoom la ñett yooyu ngay lim parce que man man laa mën a wax le président Macky Sall mën naa proposer ni nan dugal kii nan dugal kii nan dugal kii peut-être à son niveau mais volume d'information boobu wóoruma ci xaw ma ci lu bari mais damay def rek cliché laay def le président Macky Sall bu ko proposé ñoom war nañoo mën a toog saytu ko ni président kat gis nañ fii erreur gis nañ fii erreur gis nañ fii mais comité technique loolu lay jëriñ mais lii lii lii ñun sax. duñ ko def ñun xale yi kon donc sacre mu la ak ñoom mag ñi. Mm-hmm. wax nga ko léegi ndax xalaatoon nga ñu dem élection boo xamante ne bennoo bokk ci yeewoo bo yeewi bokk ci. bon xalaatuma ko woon nag mm-hmm. franchement xalaatuma ko. bu ñu bokk xalaatoo woon ñu. non loi la. parce que am réew bu ci loi amul jungle rek ngay am. waaw man loolu laa gëm li ma gëm mooy que la justice soit faite et que dañ koy appliquer. am réew lu koy doxal mooy yoon ay règles qui ont été établies pour ñu man cee jóg parce que bu fekkee euh, tëgguñu ay normes tëgguñu ay règles yoo xam te ni mooy ñànk réew mi ay poñ yoo xam te ni moom lañ teg ne lii kat moom pour pour a ñoŋal réew mi ah bu amul problème lay am ndax boobaa lu neex waay def lu neex waay wax loolu moom. ok ñu gis ne tey jii euh, fële ci seen yooyu tamit ba tey. Mm-hmm. coow li euh, mi fay ñu combay parce que am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne erreur la boo xam ne c'est impardonnable waruñu ko woon a mën a nangu mhm. ñu teglante ñaari jig am nañu si tudd sabotage am lu nekk ñu wax ko ci mhm. si jafe-jafe parrain euh, boobu ñu wax si seen liste Benno Bokk Yaakaar moom wax léegi ni la loolu dara du leen lu dul ak cuune non sabotage bi laa la bëgg wax si question bi non sabotage bi sax xëy na wóoruma wax dëgg fa yàlla njortoo ko si non yaakaaruma ko ci mais li ma ji gëm ko ci rek loolu mooy li ma la wax. mooy ab cuuna am na ci daal. ak am na ci bien sûr. ñun ñii duñ ko def boo joxoon une équipe tey par exemple dinañ xam dinañ yor loo ay jumtukaay yoo xam te ni dinañ ko def saytu ko keneen jëlaat ko saytu ko keneen jëlaat ko saytu ko ñu def ko déposé. sorti Ousmane Sonko def sa ëllëg sa conseil constitutionnel daal di dugal liste yooyu du du menace doon ab menace bu mu def boo xamante ne daf koo def pour ñu bañ leen a recalé. bon xawma ma nag Ousmane Sonko nu ko defee parce que euh, c'est difficile de euh, en tout cas c'est difficile. c'est extrêmement difficile de euh, lire la pensée d'une personne. non mais li mu wax ko. non xam nga xam nga woote na fi yow dafa mel ni da ragal Ousmane de. non Ousmane. yox yoxi parce que. gis nañ Mimi Touré génn attaqué ko ñu bëri mhm. génn nañ attaqué ko. Mhm. mais yow nga bokk ci jeunes yoo xamante ne. Mhm. yow yaa war a jàkkaarloo ak ñoom porter l'estocade. bu fekkee ne da layam layam ak de yox yoxal aussi tamit ba mag ñi génn di génn di leen tontul je, je parfois aussi. xam nga euh, la nature a l'honneur du fils. et que par contre ce qui est honteux et pathétique mooy euh, di tontu nit ngir nit. Mm-hmm. dañ ko war a dépassé j'éviterai yi en tout cas ci discours Ousmane Sonko di noter assez ah, bien à ah, bien lamentable déedéet du ma ko def. mais politique ngay def tamit ah. d' mais la politique doit être vraiment accompagnée par des valeurs. parce que mooy li may faral di wax euh, jinne du wàcc malayka du wàcc yaaka l'être humain l'être humain qui est là qui est là c'est un citoyen euh, qui est dans sa cité dans sa localité qui serait vraiment dans l'obligation d'être un serviteur de sa localité de son peuple boo xoolee euh, ci Sëriñ Tuubaa mi ngi koy wax ci ay ci ay baytam naan yaa qawmi yaa qawmi ij'alunii yi ilaa ilaa qawmi donc politique bi nga xam ne war a def valeur lan war a incarner l'incarnation de sa dose de sagesse cette capitale spirituelle aussi que nous avons. Mm-hmm. loolu man ca laay dox. ci loolu nga gëm daal politique boo. xamante ni nan nga ñu lépp rafet na yow doon naa ñu opposition. non bien sûr mooy li ma la wax sànq dama ni la j'éviterai de noter assez bien ou bien à ah, bien ou bien lamentable. Tu évites aussi de parce que yaa mën nañoo critiquer pour améliorer. dama la apprécier le discours Ousmane Sonko bi nangoo ko nangoo cee. non c'est difficile de lire des pensées des pensées. ma dama la dama la c'est difficile de lire. déclaration déclaration du ay pensées. a priori non non non Makhtar du ay pensées c'est une déclaration qui est là. de la. c'est difficile de lire une pensée. à priori des arrêts pensées. non ce sont ses pensées déclaration. bi mu joxe ce sont ses pensées. Ah, mu xalaat rek ci wax. Mhm. moo tax ma ni la man peut-être Ousmane Sonko da koo wax mais conseil constitutionnel duñu ay coono. ce sont des personnes de grande carrure. moo tax du ma ci dugg. ok ah <laughs> jeex jeex na. bàyyi bàyyi ñu dem ci am na ñoo xam te ne ay borom ay ay son ay ils ont des cheveux euh, voilà seen karaw yu weex na. chevronné karaw weex taxul nga am xam-xam. non non non non dama la ah, d' accord. Matar da ngay ruux quoi. non non non gis naa fi ñoo xam te ni seen karaw weex na ci amuñu xam-xam gis naa fi ñoo xam ne seen karaw ñuul na. te ñoo xam-xam ñu mais dama ne la conseil constitutionnel. Hmm. je vois mal. yaa ngi dégg ñoom ñuy wax. sans cette parfaite conviction am loolu yaakaaruma ko ku dem ba mag ba mu jaaw booy wax war ngaa xool sa diggante sa borom. moo tax foofu si la ñuy dem. Mhm. du Tiwaawan. Mhm. fukk ak benn ci ay tout tànk ñàkk fa seen bakkan ci lakk bu fa amoon. Mhm. nëga ni daaw ci avril. ñeenti tout tànk ñàkkoon seen bakkan ci hôpital Magatte Lô bu Louga. mu doon benn mbir moo xam ne ñëw na ñëwaat. ci yow naka lañ mën def pour moytandiku lu ni mel. waaw foofu damay masawu d'abord euh, le xalif général de Tijane euh, sunu maam mm, di nuyu aussi di profité ci occasion bi di nuyu waa la waa Tivaouane yëpp di nuyu waa Taïba gi nga xam te foofu laa dëkk leen masawu aussi bu baax a baax a baax baax parce que euh, métti na. vraiment situation yooyu ñuy dund c'est extrêmement difficile donc euh, duñ def lu leen masa bu baax a baax euh, euh, di leen wax nu muñ ndax suñ borom ne na inna allaha maa yàlla ne na mi ngi ànd ak wal muñkat yi kon donc boo muñee rek suñ borom dina la dina la taxaw beneen côté bi dañuy wax rek xëy na ni Sénégal nii la tëddee peut-être ñun war a jox joxuñu leen ñu nu war a cërale. maanaam cërale wu ñu leen. mais boo xoolee domaine sanitaire bi à chaque fois ngay dégg yi fi am yi fi am ci bu ñëwee euh, kilifa gi nga xam ne moo fi nekk ña fa nekk lay sanctionné ñun ñëpp ko gisandoo à Louga pare ka fa nekk lan sanctionné boo xoolee ci biir femmes di grève ñuy accoucher ñu nañ ko jël yóbbu ko ba ay saint yeeg yooyu c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi. lan saafara si laal laaj. saafara si équipe bi nga xam ne ñoo fi nekk ñu changé leen. mooy et puis kenn ku faut à la place qu'il faut. mooy du ma wax ñu jëlee ko fi parce que. loolu nga bëgg a wax. non non non non non du ma wax. woon équipe bi fi nekk le président Macky Sall kooku c'est moom moom voilà boo déggee ma la équipe bi ku fi nekk ñu équipe. technique bi man jëpp man man. technique technique ministère ministère moo ko jiite. mais dak mais bu fekkee ay sanctions. mais kay fi ministère ministère. non duma wax le président Macky ko jëlee ko fi. mais na gën a xoolaat taxawaayam. a xoolaat taxawaayam bu baax a baax ndax. erreur mën nañ ko nangu mais répétition répétition loolu ma su koo nangu mhm. lu métti la et que par contre ñu ngi masawu ñii mais situation yu métti la et puis ñoom seen famille ñoom duñ ko dund parce que ñoom bu ñu dee faju étranger avec seen i bitim réew lañ dem fa jugee donc ñun bàyyi lay ñoo fi faju et tout genre kon donc ñoom nan bàyyi xel bu baax a baax loolu gën a taxaw askan wi bu baax a baax. mais ñi ñi wax ne ministre dafay jóg daf dañ dañoo war a tekki ndombal tànkam nag loo leen di wax. bon loolu aw ma ci xam-xam ma ci xalaat. pour aw ma ci xalaat. ah le président Macky Sall mi ngi leen moom moo war a décision. ah la décision revient à ma mhm. <laughs> bàyyi la nga def sa de la fin. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal di la sant aussi ci opportunité bi ñu may di nuyu Sénégalais yi bu baax a baax di woowaat jeunesse bi surtout pour ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax euh, li ñu yor euh, di gën a wax ni les partis politiques euh, bu ñu foowee jeunesse bi déedéet. parce que quoi qu'on puisse la jeunesse qui détient le haut du pavé euh, li may faral di wax aussi cette déconstruction et cette démolition des acquis démocratiques fi mu nekk nii du leen lu ko waral lu dul amatul ay parti politique yoo xam te ne day am école du parti te loolu yaa problème kon donc dañuy gën a ñaax que ce soit APR que soit réew mi kum ci man di nekk yeew mi kum ci man di nekk ñu gën a xool école école du parti gën a ñu malaat aussi jeunesse bi teg ci kaw ci chaîne politique bi gën leen a responsabiliser di wax jeunesse aussi bu ñu bàyyi bu ñu mus a taay déedéet Sénégal moom ñor ki Sénégal bu jaree ñu jël suñu bakkan wekk ko teg ko ne dinañ ko def ndaxte kenn ku la kenn ku la bëgg jar na daaw ba ndax téeméer yi la bañ. kon donc Sénégal moom mënta séddoo ñun bëgg suñu réew waaw ñun gënoo aussi suñu réew xam ne amuñu réew réew mi. waaw loolu daal maa ngi koy ñaax sama bopp di ko ñaax aussi toute une jeunesse. ma lay jaajëfal Matar Mbaye yow yaay jiitu rassemblement des jeunes pour le pour pour le pour le Sénégal émergent waaw rassemblement des jeunes pour un Sénégal émergent euh, bokk ci ak langue politique yi ñu fare ak président Macky Sall mhm. ñu lay jaajëfal ci invitation bi ñu nangul di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon suivre Mansour Dramé moo nekkoon ci caméra yi ba beneen incha allah ak beneen invité jaa jëf ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matalewul waaye ba